Taco Chamber, the house low asalaamaaleykum mbokk internet du Sénégal TV amati nañu mbégte ak kontante bu baax a baax dalal leen fii nga xam ne mooy suñu émission bi nga xam ne saa su ne nit ñu bëri dañ koy xaar muy taxaw seetlu waaye taxaw seetlu nag tey gis ngeen dañu am gan gu mat gan jóge ba Thiès macha allah ñu fi nga xam ne moom mooy Sénégal TV fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom mooy wàllu ci li muy yëngu waaye nag mbokk yi tey du ma ko dugal damay bàyyi mi nga xam ne macha allah moom moo yor côté boobu mu dugalal ma ki nga xam ne moom mooy sëñ bi. Souleymane ñu ngi nuyu ñu ngi seetaan bu baax di la wax ne dañ leen jàmm seen émission mhm. di wax ne tey ñu ngi fi am benn gan gu mag bu ñuy wax Serigne Fallou Kébé bu mhm. yëngatu si wàllum euh, di tradipraticien mhm. yëngatu si wàllum asrar duñ def lu dul bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a xuus si waxtaan bi ah, sëñ Fallou ziar nañ sëñ Abdoulaye Malick Diar alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiyya ba'da rabbi ishrah li sadri wa yassir jërëjëf sëñ bi boo ko dégloo ni mu nuyoo nga xam ne am na solo trop am na am na tamit taalibe waaye nag sëñ bi dafa am ci li nga xam ne moom lay yëngu mu ni ko Souleymane waxee mu nekk ci li nga xam ne moom mooy wàllu tradipraticien waaye nag ci wàll boobu muy liggéey dafa am ci loo xam ne ci lay yëngu dëggantaan muy wàllu aslaar waa wàllu aslaar boobu nag tey la war a toj mu wax ñu lan mooy loolu waaye nag ci biir loolu am na euh, vingt pàcc yoo xam ne war nañ ko toj mu wax ñu bu ci nekk nan la ci ma mënee. Souleymane nga dugal loolu ñu xool bi ci njëkk lan la. waaw jërëjëf Moussa si boobu si si yooyu la kàddu. Mhm. Euh, bu si njëkk buñ koy laaj. Mhm. bokk na si mooy mu mu jaaxal ñëpp nag Sénégal gi yëpp. waaw euh, mooy sëriñ bi dañ laaj kon ku bëgg a bàyyi wàllum tuxum ak sàngara. Mhm. ndax loolu am si pexe. waaw jërëjëf loolu moom incha allah du nekk lu yàgg sax. du nekk lu yàgg du nekk lu yàgg comme rendez-vous yi ñu ci am di ko jëlee ba mu jéggi nga taayal toog mm-hmm. loolu du ci am insha allah rabbi du ci am yàlla may na ci may boo xam ne nii moom mm-hmm. moom kenn mënu ko wax daal moom daanaka ñëw rek gis rek lay doon waaw sëriñ bi li nga wax noonu yéeme na de loolu moom la mën a nekk suñu gàtt noonu loolu du ay du ay rendez yooyu jël si ba taayal comme ni ma ko mm-hmm. gisee ñu koy defee woo nit ñi bañ ñëw nga jox leen rendez-vous rendez ñu ñëw ba sonn daal di bax uh-huh. keneen dem ja loolu du loolu du ci am maanaam képp koo xam ne nii def nga ko te néewu la mm-hmm. nga dem ba nga xam ne yow yaay jël sa décision édition sa décision bopp ne da nga ko bëgg a baax mm-hmm. soo ñëwee insha allah rek foofu nga koy bàyyee kon su ma mu comprendre mooy jooni jooni lay doon moom jooni jooni la moom jooni jooni la jooni amul ay radio boo fa ñëwee daal bu dee lu boobu boobu yitte rek nga amoon mm-hmm. doo fa dellu si insha allah kon yow mi nga xam ne yaa nekk ci wàll woowu di ko def te bëgg ko bàyyi laa dafa am koo xam da ciy nekk mm-hmm. waaye bëgg na ko bàyyi waaye xamul nan lay def ba bàyyi ko mm-hmm. boo ko bëggee bàyyi jëlal numéro bi su lay jox ko waaw ñu ngi leen jox adresse su Serigne Fallou Kébé mm-hmm. ñu euh, moom mi ngi nekk Thiès Anen ci arabe yi ci arabe yi numéro téléphone di 77 622 99 19. benen bi 77 058 63 49. mais su lay yoo xam nga ni affaire yi jeexagul. Mhm. nañ ko topp. waaw lañ mo topp parce que li indi bari na 20 sujet la. jeuf Moussa. Mhm. ñu koy jaajëfal si leeral ba ñu andi nonu ci bu njëkk bi. Mhm. benen bi sëriñ bi dama lay laaj. tay xalé yu jigéen yaa ngi toog. boo seetloo tey Sénégal jigéen ñi sëyul bëri nañ. dañu lay laaj ba xam ndax loolu am nga ci pexe jigéen bu bëgg am jëkkër. wa kep ko xamni ne da nga yaangi yaangi tollu ci wara am borom kër amoko amoo ko. kooku maa dégg na gaaw. kon yow mbokk mi ban dawal gaaw Thiès en yéen c'est arrêté borom kër rek ni ni def nii toog nii rek amuñ jëkkër di génn nit mu jëm fu kenn xamut. genn rek genn rek. bu yàggee sa nga baye ko wuti kenen waaw mu amaat 20 ans wala mu amaat 5 ans am nañ 600 am nañ 300 ans. waaw ci am de da am. mais seen bi lima ci neex moy da nga ni ma. Hmm. yaa ci gaaw. Mm-hmm. maa di gaaw te gars yi soxla ko lool. Mm-hmm. xam nga daa bëri. waaw mm-hmm. maa di gaaw maa ci gaaw kon nag moo ci gaaw jox sa waay bu ñu joxee numéro bi yoon day gaaw. jàllal bi ci egg bi ci topp. waaw bis mooy. Euh, ku tëju te loolu buñ koy seetlu dafa bëri si dëkk bi rab nit ñi dañuy lijjanti ba sonn dara du sotti dara du sotti gaa yi ngi seen ay CV yu dul jeex déposé nag fu lu jàng ba ba pare war a war a liggéey xam nga fa metti mm-hmm. jël jël sa saag dem ci école yi di jàng ba war a déposé nag léegi déposé bi ne tëj tëj waaw kooku it maa ci gaaw naka man mm-hmm. man seeg man kii daf maa neex barke rasulillah sëñ bi moom moo ci gaaw man balaa muy wàcc plateau yi daa ñu may waaye moom a jàngal. macha allah daa leen doog a laaj. ba may ba may ba may ba may am 600 laa nekk ak moom. ba bi ma fi bàyyee. 2007 2007 2009 bu jógee sën. macha allah moo tax lu fa nekkoon rek. Mm-hmm. jël naa ko ñëw toog. macha allah kon kay yow foog ñu gisee balaa ngay jógee fii. su dee Moussa dama leen dul xuus si beneen bi. Mm-hmm. beneen mm-hmm. tamit bu sonal nit ñi la. waaw mooy wàllum pays ndax loolu am nga si pexe wàllum payis waaw kooku it benn pàkk bi la ci jox du doon ñaar du ñett yooku mhm. doo bàggante ba soon dafa metti mhm. di ñëw ak ndax Ndakaaru ba Thiès moom dafa sori bu nit naree ba toq ah, la àq la mhm. mais Moussa balaa ñuy xuus parce que man dama am lu ma ko bëgg laaj lu am solo si loolu si takk yi muy wax parce que bëri nañ ñuy joxe ay takk ay wala ay sunguf yoo xamante ne après dafay indi problème santé si nit ki ba xam ndax yow say garab baa du am benn effet secondaire du am loolu man kay ku ma jox man ngaa leen ko rabatoowaa bu la neex nga yóbbu ko foofu waaye doo ko utiliser macha maam loolu maam la maam cosaan la boo xam ne nii mhm. dañ koo segg ba daanaka ah. ba ñu xam la loo xam ne daanaka mhm. ñi ci judd woon ñi ci judd ñi judd woon sax fi ñu toll nii ay mag mhm. di ko jaay ak nangam te xamoo li loolu kon su dee loolu leer na waaw jërëjëf xamul rek jërëjëf sëriñ bi si yooyu la leeral ñu lay jaajëfal beneen bi sëriñ bi Bayra Ndiaye ak ku bëgg a si wàllum wàllum place bu may liggéeyee. waaw loolu yi benn yoon ngay ñëw doo dellu si. est-ce que kon gars yi ñoo ko déggandoo. di liggéey ci sa place. ñu mm-hmm. kenn xamul la. Mm-hmm. wala nga yor takk say bagage jëndee ko lu cher te gisoo kenn. Mm-hmm. loolu yi benn yoon lay doon ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ah Moussa Koy ñëwee wala gis après non lii du loo xam ne da koy wax benn yoon mm-hmm. faaw mu répété waat ko posé waat ko question bi mu mm-hmm. répété waat ko parce que lii mm-hmm. lii mooy base bi Bayra Ndiaye ak ku bëgg a siiw si wàllu ngay jaay dañu say client uh-huh. wala ngay liggéey ci mbir te kenn xamu la uh-huh. liggéey ci marché te kenn xamu la ku ne am diw sax ne kooku da xamuñu ko uh-huh. loolu mën naa jeex ci lu gaaw ci lu gaaw kon loolu leer na ñu leeral mbokk internet bi nga xam ne yow yaay seetaan leer na moo tax ma que nit ki dafa am loo xam ne mooy base su àdduna ndax liggéeyukaay ñu bëri bëgg nañu jël ay nit mhm. waaye dañuy investir xaalis comme ni nga wax mhm. ba pare du am retour mhm. moo tax ñu mën a jël kon loolu boo ko soxlaa insha allahu rabbi boo ñëwee gis sëñ bi numéro baa ngi noonu ci suuf boo ñëwee rek insha allah lépp dina sotti lépp dina sotti macha allah waaw jërëjëf Moussa ñu dem si beneen laaj bi sëriñ bi sëriñ bi ku tukki bëgg ay këyit ndax loolu jafe na lool immigré sonn nañ lool si wàllu am na ñu fa nekk lu sonn fi lool daanaka mën ngaa waaye ñëw ñëw moo lay xaw a ak ñu fa nekk di di ñuy génn kenn bëggante kenn waaye day mujj kooku day sëy mm-hmm. yàgg nga yàgg te ñàkk nga ñàkk ami kayit mm-hmm. kooku nag moom képp ku ci gisee ñun mm-hmm. diggante ñoom ñun suñu waxtaanee bu juboo liñ ko indi moom ak sëriñ bi nekk yi moom médecin yam waaye liñ ko indi ci Sénégal moom laa tax saa jéem ko takk. ah allah képp ku ci dégg ñun rek loolu kay dafa waaye liy ñaan yàlla mooy képp ku aajoom narta faju rek bu gisee ñun loolu lay képp ku aajoom narta faju narta faju hmm. bu gisee ñun lu mu yomb yomb laa wax suñ taqala woon kër te wërta faju doo ñu gis waaye ku ñu gis aajo faju incha allah rabbi loolu am na solo li mu wax nag jar naa bàyyi xel hmm. ndax nee nañ même boo leen taxaroo kër hmm. te yéen ñaar waru leen gisee duñ leen gisee waaye dëkkal ba Allemagne. Mm. boo leen waree gisee. di ngeen gisee te boo leen gisee mm. sa aajo faju ndax lu mu ñaan yàlla ndax waaw ndax lu mu ñaan yàlla lu mu ñaan yàlla ba ma ko. mu lu am solo macha allah. Mm. si boobu yooyu la leeral sëriñ bi ba bii nag moo gën a doyati waar. ndax tas na kër yëpp. mooy wàllum télé. mooy mooy wàllum. wàllum télé. télé télé bëri na bëri na sëy mu tas sax waaye rajo mm-hmm. benn doomu goro laa lay jox doo fa ñëwaat bu soobee yàlla. xaaral même tuuti. sëriñ bi waat ko posé waat question bi sëriñ wàllum tële laa la laaj de tële benn tële mel ni mii jaaxal ñëpp nga xam daal kenn dootu góor mhm. benn doomu góor nga lekk ko fi nga toog daal dem allahu akbar ah gars yi yéen ko déggandoo wala ay biron ngay naan di biron yi di naan rek mhm. naan nag yooyu baaxut yooyu kenn du ko def bu mais ma faaw wax ak ki may seetaan nga mhm. comprendre man ma leeral la ko nee benn doomu góor ngay ñëw seet si ko boo ñëw man nga ko indaale booy ñëw yow mën nga ko indaale pour bañ moom mu jënd ko yow ah, indaale ko boo ñëwee toog mu def ci lim ci def jox la jógal dem nga lekk nga lekk dem jóg dem jeex na ci kàttanu suñu borom macha allah ñu ko déggandoo su lay doxalaat ñoo ko déggandoo Moussa loolu doy na gën a am solo ci biir am na yu gën a am solo yu ñëw hmm. beneen bi tamit stock bi tamit hmm. bëri na kër tamit yu ñu yëngal mooy hmm. wàllum éjaculation précoce ma maanaam wàllu gaaw a daanu gaaw a yegg góor ñu bëri lañ gaaw a yegg jamono ji ñu toll nii. képp kuy bëgg a dem daal ba kontaan. nga soxna <laughs> kontaan. yàlla waaw waaw waaw non man Souley. wax dëgg yàlla bëgg naa téye sama bopp ci plateau bi. Mm-hmm. mais lii mënu ko séré lim la wax dafa leer. Mm-hmm. dem ba eh. kontaan la la wax. dem ba kontaan waaw kay. Ah. loolu yëpp ah. gars yi loolu la ñuy la ñuy ah. mooy li ma waxoon rek sama kàddu gi ñëw na. ñaara yor kër. waaye booba gën a wóor. booba gën a wóor nag. booba gën a wóor su dee doxalal. benn hmm. bi mooy ku bëgg am doom. léegi dëkk bi léegi bari na ñoo xamante ne dañuy sëy ba sonn mais duñu am doom mën nga am doom waaw loolu tamit de Eh, du ma ñoo ci man de waaye yaakaar naa ku doon lim ñi man. Hmm. boo ne kenn te boole wuñ ci rek juum nga. juum séeréer te mënoo am doom yàlla dafa wax ci alxuraan ne yaxluqu maa yashaa yaxabu liman yashaa inaasan yàlla nee na ay am ñoo xam ne ay jigéen waaye demeen mhm. laa leen may ay jigéen mhm. wa wa mhm. inaasan koo xam ne nii xool nan la ba nga xam ne nii gisuñ ci yow lenn lu la tee ma am doom boo ñu man da boot mën wax leen na de kenn kuñ xool kenn kuñ xool ba seetlu ne yow amul la mën a tere am doom boo ñëwee si moom mën ngaa jël mën ngaa jël mbootu mën ngaa jël mbootu doo ko ñëw mm-hmm. kon booy ñëw da ngay jënd mbootu yow mais waaye sëriñ bi macha allah dafa mm-hmm. rassuré mm-hmm. su lay dama dama bëgg parfois gars yi déglu déglu ne na yow mi jigéen di war a ñëw jëndal mbootu doo ko ñëw neewul ab mais jëndal mbootu def sa saak ñew wax ko sa soxla ci kàttanu suñu borom loolu nag dafa am solo mu lay jiital saa su ne ci kàttanu suñu borom sa aajo dina faju ñu dem benen bi moy musa eh, musa lu may laaj sëriñ bi hmm. euh walum nawtal am ñu bari seen place liggey kay dañ leen di nawtal duñ fa tok hmm. ku bëgg tok ci place liggey kay ndax loolu am nga ci pexe kooku duñ duñ la indi do nga yem ci ndax duñ hmm. lay indi kala nawtal man la nawtalat dañ lay indi sample la ku la fa jëlé jóg fa manam dañ koy samp dama koy dama koy dindo pare ah ba mu toog ma samp ko léegi ka ko ka ko fa jëlee woon bu ko jëlewaatee jug fa bu ko xalaatee wala bu ko bu bu na jéem rek bu toogaatee di jéem. waaw moom du ko nettali kenn maa liggéey di ko du ko waxaat. loolu allah bu koy nettali ci ay. comme ñoo ko déggandoo bi. fii baax na joxe numéro bi waaw ñoo ko déggandoo comme adresse am la mu ngi nekk mu ngi dëkk Thiès. Anen Anen Anen Thiès Anen. Thiès Anen si arabe yi. waaw numéro am di 77. 058 63 49. beneen bi 77 622 99 19. képp ku ñëw ca doo daane bu ñu ko mooy aaneen foo mhm. taxaw ne suñ faalu xale bi duñu tudd mooy daal joxe tur bi joxe leen ma turam waaw ñu leen fàttali ñu ngi toog si plateau bi ak ku ñuy wax Serigne Fallou mhm. Kébé Marahib mhm. dëkk Thiès aaneen si arab yi ah, numéro téléphone bi 77 058 63 49 waaye su lay boo ne ci arab yi yow taxawal ci arab yi rek nga woote nga woote si numéro boobu si la inshallah képp ku fa génn waaw sëriñ bi laaj bi si topp mooy comme ki nga xamante dañ ko liggéey wala liggéey buñ ko sax mu bëgg mu bëgg karangé nga xamné kenn du ko mën liggéey waaw kooku bu ñëwee def na ko defal lo xamné ni comme signal xam nga signal moom tuti na waye ci rabu Allah ne kenn du ko laaj dara kenn du ko joggi de moom ngay bal teng si la ku la mm-hmm. ku la dóor juróomi and ku la liggéey mu kepp ci kawam bul sonn ku la fi sëñ na ko damaa bëgg damaa bëgg rey Moussa mm-hmm. day faat man man faaw ma gis la man man sama boy wàll ak benn client ngi nii man faaw gis ko ku la liggéey mm-hmm. ndax ñu bëgg dal sama kaw bëri na léegi faaw ma gis ko ma am teg ma am affaire boobu jam-jam boobu noonu. nekk sama ginnaaw ba kenn dal xool. kon daanaka dafa mel ni am nga ko. waaw man am na ma. <laughs> la laal ba ba la teg si la moom bu ko dóoree juróomi ànd tax mu ngi ñëwaat. jeex buy dóoree rek mu ñëwaat. jeex na man soxla naa loolu. waaw beneen laaj bu mujj. waaw beneen laaj bu si topp kay du moins mooy wàllu istixaar ndax loolu dañ ciy yëngatu wàllum istixaar waaw boobu dama ciy yëngu franc laay def sax incha allah incha allah istixaar bu mbokk yi seetaan mooy maanaam wàllum seet waaw waaw wàllum seet mhm. Mhm. képp koo xam ne jël naa si tur takkusaan di jëm timis loo mhm. ko franc la su ma xëyee loolu xam nañ ko bu dee amoo loolu si teg ma avancé waaw non avancé avancé beneen bi mooy wàllum xalwa ndax nit ki boo bëggee nga dugal ko xalwa xalwa ñi ñuy seetaan mooy koo xamante ne dafa bëgg nit ki mm. defal la ay ñaan xalwa la am na ñoo xamante dañ koy def si benn fan ñi ñetti fan ñi une semaine ñi un mm-hmm. semaine am yoo xam quinze jours un mm-hmm. mois ba deux mois sax am na pour ñaan kay waaye képp koo xam ne am na aajo bu bu toll su mm. suñu diggante ak ñun mm. suñ ko defaree la muy sàkku suñu duggee génn mm. luñ ko ci wax rek insha allah rabbi bal lay doon masha allah luñ ko ci wax rek bal lay doon am na solo waaye il faut tamit ñu leeral ndax nit ñi xelwa une semaine. Mm. ak un mois. Mm. ak benn fan tamit yaakaar naa bokkul de. bokkul de waaw ku ci nekk ak la sa catégorie waaw ku ci nekk ak sa. ceeb rek boo yóbboon douze mille. waaw waaw boo yóbboo la xëy na waaw ah? loolu baax na ni ñi. Mm. mooy ñi nga xamante ne dañuy ëmb ba pare muy yàqu di ko mu yàqu lu bëri dem ba am yaakaar mu yàqu mu yàqu bëri na lu dal nit ñi ndax loolu am nga si yàlla xam lu ku gi ma sa ci mu allah suñu tuwaa la yam mun mun ta nekk sax sama téere kay boo ko amee booy am doom du ko yónni ci kàttanu suñu borom Moussa doo ma sa ëmb yàqu xam nga barki démb ñu ngi waxtaan fii hmm. benn thème bu am solo hmm. nga baal ma hmm. benn femme mi ngi naan prématuré ak juddu yu dafa xam nga kon ñu ñi nga xam ñun Euh, genre sëriñ yu mel nii. Mhm. di wàllu yëngu parce que. Mhm. am na solo ndax jur ëmb ba pare tamit neuf mois. Mhm. mu dellu dafa metti waaye nag boo gisee koo xam ne daf lay assuré loolu. war yónnee wu. waaye bu gisantee rek yéen gisante yónnee nga am ma jox ko la ma koy jox ma def ko waaw hmm. wallaay la nga xam dana ko ngénte dana ko ngénte waaw ci kàttanu yàlla ci kàttanu suñu borom doxal waaw beneen laaj bi mooy Mm. règle douloureuse ak règle anormale yi. Mm. règle nah, yi nga xamantene da fay metti lool ah, ak yi nga xamantene mm. da fay sauté normal la waaw ndax yooyu am nga ci pexe. yoy timit mom ben ñaan lay doon. amul radio mom moom ci yooyu la bok ci amul radio ki ci la bok mom mom ku ñew limay bind jox la. ak naan ya, dong nga koy naan do nga inshallah rabbi sa régal da normal teg ci yoon. régal bu normal lu febrari bar ci ne ci la. ci la aju. bu lu rek dikoy soxale yaangi soxale lu bon ci. sa yaram hmm. ngi togg ci yow feebar yoo xam ne saa yu sottee hmm. bi mooy règle douloureuse waaw loolu faaw ñu taxaw ci tuuti daal hmm. ñu mën a dem parce que euh, tey boo xoolee jànq ji ñoo gën a bëri jeeg jeeg te loolu bokk na ci lim leen soral ndax mi wax ci li waxam mi ngi naan dafay su boo ko bàyyee noonu dafay suuxal ay feebar la lay créer te feebar yooyu ëllëg mun na la mun na la ki kon ba muy teel yaakaar naa war nga ci mën a jóg taxaw ci jëla leeral la jëla leeral la waaw ah. waaw képp ko xam ne nekk na ci yow boo koy sooxaayal yaa ngi def ay am na ñoo xam ne nag bu méttee uh, ñu jug wut ay si naan ay doom dara mu kii la nga bàyyi waaw mu calme rek nekk la nga nekkoon hmm. ëllëg mu ñëw nga wut doom yoo xam ne da nga yoroo doomi nangam rek mu jox la ko hmm. nga naan ko mu kii nga bàyyi noonu fekk mu ngi def ci yow loo xam ne nii hmm. bu sottee rek du baax kon li baax mooy nga teel a tàggale tàqale ko ak moom ndax yi nga gis ñi ëmb di awar li ci bari foofu lay commencé rek commencé gis Euh, sa regal normalut normalut waaw di ñëw heure bu mu war a ñëw di dem heure bu mu war dem mhm. yooyu ngay wut naan ay doom yoo xam ne ak bëri xamoo lu mu doon daa bëri de nga continuer ko di ko def bëri na lool bu yàggee na mën naa demal sax ba yaw sa ëmb du normal du normal waaw daanaka boo am ba am yaakaar mhm. waa di yàqu te loolu it xam nga ne ëmm mu yàqu bu yàggee lu bon ci doomu aadama la waaw ni ko koy def rek moom nangu màgg te ci kanam tuuti rek day day fóoti day fóoti balaa def naa Moussa faj la mm. faj la nga wér moo gën mm. loo xam ne tamit da ngay def moo gën moo gën foofu parce que tamit fii li ñu rey mooy feebar yi ñuy sooxaale mm-hmm. naan garaawul naanal fii naanal ngeer naanal lii te nga am loo xam ne da koy faj définitivement moom moo moom moo gën su lay ñu ñu doxal mm. waaw mu mel ni àgg nañ suñu laaj bu mujj Moussa laaj bu mujj bi mooy boo xoolee Sénégal léegi ndaw yu bay dañuy yëngu ci wàllum sport. Mhm. lu melni football. Mhm. ki da doon laaj ba xam ndax. Mhm. ku bëgg réussir ci football ndax yow am nga ci pexé waaw kooku it mom suñu borom may nañ ci li yéeme lo xamné ni ki ñëw rek moko mëna xam. ci wàllu football. waaw kiko jang ni ba man ko. bëgg déposer ay kii mu të. mu fu mu fu mu fëgg rek mu bañ. wala mu def sa yo amé match rek daal di feebar ak yoo mënta xam. waaw lu bëri takk def. loolu buy bu bu ñëwee ñu aar ko ba fa mu bëgg a àgg na fa àgg xam nga su lay dama neex ci sëñ bi buy wax mm-hmm. neewul kuy fubbal mm-hmm. waaye ku ko fubbal ba ku mën fubbal xam nga mën ko dafa am solo mm-hmm. am solo mën ko man ngay jàng aussi ngay liggéey ba ba mën ko loolu dafa am solo ñu koy leeral mën dafa am solo waaye ci biir mën boobu boo ñëwee la la wax mhm. rapidement mhm. parce que kaay waxal nag boo jàngul football mhm. taxaw feere ni damay bëgg football ma dem sëñ mu ñaanal la loolu ah problème day am de problème day def so day def sabab lu ngay sabab lu def baax na nit di wax ci kàddoom muy leer nga koy jëlaat di ko leeralaat parce que mën mooy li tout le temps ñi nga xam ne ñoom laay nekkal mën dafa am solo bu la tëflee sax. Hmm. day dem day dem day dem hmm. waaye képp koo xam ne daal jàng nga ko ba nga xam ne. mën nga ko wala yaa ngi commencé waaye wala bëgg ngaa yegg nag fa ñoo yegg yegg. bul bul yàlla bu bu ko fàttal seen la ndax li ci mooy jeex waaye li nekk yàlla du jeex hmm. maa indi ko yan fa dama indi lay baax kon yàlla moom dara jeexalu ko booy nekk booy doo commencé bëgg a séentu ña ca kaw loolu yor nañ ci yoonu gaaw ak ah. ci sensé dina la dégg insha allah te dina la jëkk mën laa defal loo xam ne dina la dégg waaye du la jëkk ay yàqu-yàqu rek bari waa na kuy am ay tolof tolof yoo xam ne moo ko def boppam dafa mm-hmm. dafa yanu loo xam ne ka ko jox sa xamu ko far mm-hmm. ka ko jox moom mm-hmm. mënu ko koo leeral su ko yoree nag boo yow lépp sangoo moo xam lu takk la ay tolof tolof dong lay nekk def blessé ñu koy yóbbu ko faj ak ñëw loolu saa yu feebaree rek feebar boo xam ne blessé rek yàq na ci yow sa carrière sëñ bi def na ñaari leeral waaw mooy euh, daf la koy jox ba pare ci kaw jox boobu da ci jig waaw incha allah waaw xam nga ñaar yooyu ñoo ànd waaw façon defar gi defar gi xam nga ñaar yooyu bu la ko nit joxee ci wàllu ñaan mm-hmm. jox la moo moo tax mi ngi leeral mi naan mm-hmm. nit mën na la koo jox sax mm-hmm. te lim ko lim la jox moom mi la ko jox xamu ko xamu ko te kon baax na ngay jox dara nit ba pare xam li nga koy jox ah, ah. ba pare wan wan ko yoon bi kon dafa am sarax yu ci war a génn bu ko xamut wala mu xam ne lii xaalis bi nga ko war a laal. da ko war a laal boo ko war a laal boo amul 45 ans bu bu ko laal yooyu yëpp nag ki la ko jox bu ko xamul moom. gis la ko kooku mm. sonal mm. ko sabablu. ñoo ko ko jox xam ko. yëpp ci sens xam ne diw xam nga dégg nañ la waaye nag mm. dégg neexul. dégg neexul waaw. problème boobu sax mën nga caa bañ a laal dara waaye yaa ka la jox moo xamul lam la jox lam la jox léegi lu mu doon laaj suñu wax léegi dafa am solo ñu jox xamuñu ko mm, mm. loolu nag bëggoon naa yéen ngeen ay leeral loolu jël leeral waaw xam nga lasaraar mm-hmm. mu mu mu bitig yee yam dana koñ boo dem rek dëkk bi dëgg ak baax la salaat bi noonu daanaka ndakaar kër ñetti kër yoo wàññi mm. ak faneen fu dul ndakaar sax mm. walaa li ngay la ab sëriñ nga fale mm. waaye nag ki samp dafa gën a wóor ki ah. samp nekk fenn waaye ku yorob matelas rek matelas bi jël juróomi téeméer dugg ci mu néeg lu mu mën a defit ba ngay xëy fekk mu lem matelas bi daal dem faaw ñu seetlu yooyu dana ki ki ki na. wala ki bëgg a moy nek ci li nga xam moy lu moy ki nan naan fii la dëkk fi la dëkk. waaw dafa am solo bokkut ak man laa jëm teer boo xam fa nga luyé ben weer nga am wala deux deux mois. bo fa defee nak suñu non rek la lem sa malade. dem te guddi ngay jóg. wa mm. te ñu bari nak fi ne man ñi dañuy wéddi te lañuy wéddi weddi maam dañoo gis ko mënu doom. sëriñ ci ma nga sëriñ ci wax dëgg yàlla kilifa diiné ma nga ne kilifa diiné rek si duma tuuma mais kilifa diiné ak ñan la mm. ak ñu ko def. sëriñ si tamit nonu mm-hmm. def na nangam def na nangam waye ak def ña ko def ñoo xam la ba tey ña ngay ña ña ña ngay gore. macha allah kon faaw ñu xam kii liggéey. Eh, ci ci métier la am moom. ci métier yëpp dëgg la kuy defar ak kuy yàq. kuy defar ak kuy yàq. waaw am na ko xam ne moom jàpp na bu amee yére bu jot rek. Mm-hmm. war naa mën a def wut am mbaxanaam te ci bopp bi. Mm-hmm. jël mbaxanaam xonq wala ay béjjén ay kii fii la xari jaar. li mu tum kon euh, Souley. Mm-hmm. Euh, waxtu bi daanaka neuf minutes moo ci des mm-hmm. waaye nee nañu euh, waxtaan amee ba pare mm-hmm. nit ki def wax li nga xam ne moom lay def mm-hmm. waaye baax na tamit euh, ñi koy seetaan mu am ay conseils yu leen dénk ndax jamono ji genre kilifa yu mel nii day baax ñu laaj leen seen i xalaat ci ci pas ci réew mi sax mais ci àdduna bi yëpp lan lañ war a nit ñi war a mën a gën a fonk ci seen bopp mu gën a mën a nekk ci yoon bu baax sëñ bi waaw li ma ci jëkk daal mooy dénkaane lislaam rek te mu nañ nangoo jàng nañ nangoo jàng yëpp baax na benn jàng moom bon mhm. waaye en tout cas na alxuraan njëkk ci dëndu xale bi mu njëkk koo jàng ba pare mhm. ndax su njëkkee ci moom mhm. lépp loo xam ne nii bëgg na ko def sax day yomb ndax alxuraan kiis la kiis gi nga jox nit ñuy naan alxuraan moo moo ci njëkk ki ko jàng a xam xam da koy xam kon yow bu dara sax bu doon lu ko yàlla wàcce sax maanaam nga jàngal ko sa doom nga ci àdduna rek jàngal ko jàngal ko boo ko jàngalee alxuraan maanaam leneen lu mu bëgg a jàng yomb alxuraan bi jiitu woon kon daal xale yi nañ jiitu alxuraan ci jàngal leen ko ndax jub mooy li am solo mm-hmm. alxuraan man alif laam miim yàlla xam ne jub mm-hmm. salikal kitaabu mm-hmm. boobee téere rek loolu loolu mm-hmm. laa reba fii amul sikk waaye xoddan lil mu tàqi na xoddan mm-hmm. kon jub moo ci njëkk te jub leen waaw xoddan lil mu tàqi na bi njëkk mm-hmm. bi mu mu njëkk ko indi ci téere bu tedd boobu te jub googu nag alxuraan moo ko a suuxat ci xale bi ci xale bi ndax ñu ñi jàng la neen ngay gis ñu def la neen waaye ñu jàng alxuraan moom nii waa da ngay dégg si daara ba euh, donga ya dàq nañ ko wala donga ya tànn nañ ko ay xeer wala it ko xeer kon ñeneen ñi jàng la neen rek nangam kon nag arxuraan nañ ci nañ delluwaat ci base bi dëkk dëkk dëkk delluwaat ci base bi jàngal ko xale yi eh, dégg déggloo leen ko mm-hmm. leneen lu ñuy jàng mën ko jàng xam-xam bu bon mu amut xam-xam yi bu baax waaw lu waaye mën a am bu man cee liggéey man mm-hmm. cee sàmm ngorom rek mm-hmm. loolu baax la alhamdulilah waaye nañ jiitu jàngale alxuraan alhamdulilah sëñ si yooyu leeral man beneen bi may laaj mooy si wàllum dëkk bi Sénégal fi mu nekk coow li dafa bëri trop si wàllu yëpp nag muy politique beex wàllum jàng meex lépp coow ko bëri hmm. yow loolu la si amoon looy looy wax wax ñi nga xamante ne si dem waa loolu jikko yi lañ war a defaraat hmm. loolu lépp ci jikko yi la kii jàng jikko wutu jikko ju baax ki koy jàngal jikko wutu jikko baax hmm. ndax fene boo xoolee ñee fi jàngal dañuy génn donga yi yi di génn kon jikko yu baaxut ko ki war a jàngalee jàngalee mun wala jàngalee am ngor kooku fekkee mooy gerte élève bi gis ko ci moom la ko jàngal noonu leetare bi kon jikko yi rek jikko yàqu te nit ñi tamit kenn yéenewatu sa morom jàmm mm-hmm. boo gisee xëccoo beeg coow lu bari Sénégal yi yëngu mm-hmm. loolu rek la kenn mm-hmm. yéenewatu sa bopp boo boo sañoon sa morom doo du am jàmm boo sañoon yaay dem waaye kenn du dem moo tax liggéeyal bi na xas fi mu toll nii bari fi mu nii saa yu xëyee ñu ngi seet koo xam ne mën nañ koo fa ata ñàkkal mën nañ koo fa ata ñàkkal doomu ndax yow li ngi diglu ci moom rek mooy échec am loolu moo waral a lu bari li hmm. ñàkk yéen jàmm gi rek hmm. waaye ñëpp bu yéen doon jàmm circonstance bi dañ ko feeñe ndax hmm. xol xol yi xol yee set xale yi nangoon te yéenante mm-hmm. waaye boo xoolee situation bi li nit ñi dawale rek nga nga nga joxe ma fàttali adresse bi waaw adresse bi ma leen koy fàttali mu ngi dëkk Thiès Anen si arrêt bi mm-hmm. ku ñëw ba foofu boo xamul kër gi mën nga ko wax si numéro bi mm-hmm. di 77 622 99 19 beneen bi di 77 58 63 49 058. 058 63 49. maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi foofu aaneen fa laa def fa laa mooy sama base. fa laa nekk Touba dëkk waaye fa laa nekk. fa laa nekk képp koo xam ne ñëw nga rek ba génn Kër Madaaro. 30 fii mhm. ci rek. ci arrêt bi mhm. boo nekkee Sëñ Fallu laa bëgg a dem rek. d' accord léegi foofu dafa am jour yoo fay nekk wala dafa am jour yoo fa dul nekk. waaw jour yooyu moom mm, daanaka samedi dimanche altine talaata ba àllarba. yaa nga fa maa nga fa yeneen jour yi doo fa nekk yeneen jour yi laay sédd la Dakar ak Mbour. ak sédd la Dakar moom mën a am bañ a fanaan. ak Mbour kon yeneen jour yooyu daal ku la fa fekkul mën na laa kar Mbour wala Dakar woowee rek yow di nga ko wax di nga fan fan nga nekk comme tey jii wax dëgg mm-hmm. yàlla instant bi ñu wax moom ni mi ngi nii Dakar di def ak ñun émission waaye nag euh, sëñ bi euh, dafay baax loolu balaa ñuy dem euh, nga joxe benn ñaan boo xam ne nit ñi ñi lay seetaan mm-hmm. di nga leen ko baax baaxee ñu man di ko def chaque jour mm-hmm. dana am solo trop waaw li ma leen di jox rek ci baax waaw li wala gudd fan ndax gis naa ne léegi léegi bari na lool li may jox na ko yomb na mhm. waaye lu lu yéeme la lu baax la lu yéeme la damaa ko addee képp koo xam ne rek eh, yàlla def na mel la yow mi seetaan jëlal waaw bindal jëlal la xadija képp ko bëgg a gudd fan mhm. bala ngaa tëdd na la war na ko jàngatoo la waaw mhm. doo gënt lu bon doo gënt lu aay te mën ngaa dund lu ëpp téeméeri at te yàlla dana la wéral yàlla dana la aar laxat jaakum laxat jaakum nga tari ko rek rasul bi naan suñu xasul alima haytu haytu halak bi mun roofa rahimun mhm. fa in tawla faqul hasbi allah ta'ala illa hu mhm. wa rabbul alamin kon loolu am solo képp ku ko tari nga tifli ko fekk nag bu doo waxaat ak kenn nag soo paree da nga ko tif sa kanam du dara te doo waxaat ak kenn yàlla dana la aar te kenn du mën ci yow dara nag kenn du mën ci yow moom moom kaaraange la ko xaar kenn ci dara ku lay liggéeyee te ku lay njibar te nga baaxoo koo def da nga dem ba jaaxal ko mu da dara dara nga day dana guddal sa fan. dana sa fan soo yàlla xeer woo nekk da da nga ci mujj. da nga ci mujj kon su lay loolu solo trop. kon fan lay ñu jaaree rek. Mm-hmm. bàyyi ko mu joxe kàddu bu mujj. ñu daal di doon mm-hmm. waaw nuyu ñëpp. Mm-hmm. li ñu waroon a jiital sax ci nuyoo bi nuyu Serigne Sidi Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa général. di waxee nag inna lillahi wa inna na raaji'uun xam ne ci kilifa gu tedd googu jógee fii. waaw al amin yàlla ko suñu borom. defal ay teraanga foofu mu tëdd di santaal yàlla rek di julwaaj yéen bi sallallahu alayhi wasallam mhm. di sant Serigne Cheikh Moussa Saliou di sant donge tarbiya yëpp nag mhm. ndax maa ngi ñoom suñu àdduna yëpp ñoo ko ànd mhm. kon mënu maa toog fii di tudd ma leen tawat na waa Ndoka maa leen di siyaar bu baax di sant Serigne Moussa di gërëm bu baax a baax ci kàddu yi am solo yi xam ne lii nag tuuti la nag ci li ma indi xëy na wax lépp mu lépp kenn mënu ko mhm. dama ciy jukki tuuti rek li gën a woote xam tuuti waaye ku woote xam ku woote xam insha allah boo wootee di nga xam li ci bari indi ko te insha allah bis mën na am waaye lépp nga ma bis mën na am insha allah rabbi ñu ngeen fexe ñëw foofu dina am solo trop parce que yenn internet yi eh. comme que ñun ñooy liggéey waa internet bi mm-hmm. dañuy xam ñun lu ñu bëgg ah, ñoom daañuy bëgg parfois mm-hmm. gis nit ki ah. waaye yi parfois aussi daañu bëgg gis nit ki mu nekk ci affaire yi waaw parce que tamit euh, loolu dafa leen di gën a rassuré nit ñi jamono ji soxla nañ ko mm-hmm. waaye dañoo xamatul fan la di liggéey mm-hmm. day am ku ñuy woo téléphone Moussa mm-hmm. ci sëriñ ñi ngeen di dalal kan moo ci wóor waaw xam nga loolu parfois dañ la koy laaj waaye bu ko defee boo amul ku wóor tamit doo leen mën a ne demal ci kii waaye ndax ndax nit ñuy bëri dama leen di wax ne nag mën ngaa toog nit mu wax ne ah man de bis demoon naa ko te fekk naa mu def lii nga soxla nii parce que kon loolu dafay am solo loolu xam nga boo gisee lu ñu kii sax mm-hmm. yàgg nañ ciy dund ndeysaan nit ñi xam ne ko ku taxaw dund woo foofa taxaw rek Sëriñ Fallu kon Cees ak Mbuur fépp ci yem mm-hmm. waaye li ñu indi nag mooy partage xam-xam xam-xam bi mm-hmm. na solo teel ki day na fa kullu man bi xilmi xat baxilaa fa innahu xalumat yu talaa képp koo xam ne am nga xam-xam nga nay ci bu jëriñoo ko nit ñi suñ tuwaay wax de nee balaa ngay faatu def naa nattu سيرتي لو واحد باغي لاهم فكل من بهلمي حد باغي لاهم فانه خلل ما ديم طلع ما شاء الله يعني كيف كو يالا ماي خم خم تي جيرين نيو نينكي ورا جيرين بلا غا فات ديسان نوت natt boobu la ñu daaw suñu bopp la moo tax ñu bëgg li suñu bopp def ci ñoom mm-hmm. ñu partage ko bokk bi lii loolu am na solo euh, suñu mu mel ne xool waxtu la xool nañu daanaka daa kii nañ sax mm-hmm. xaw nañ dara xiis tuuti waaye xam nga nag bu neexee da ngay xuus tuuti waaw nit euh, naan euh, kii yàqul cere nu ñu ko waxee sim yàqul cere dama sim tuuti rek waaw eh, sa ba jeexalee mooy comme moom li mu wax rek ah. ma indakum yan fadu wa ma indallaahi baaxi nee na lépp yàlla mooy wax ne moo ñu fàttali ne yàlla nee na lépp lu ngeen am rek day jeex waaye moom lu moom du jeex comme nag lu juba jiwul wax sur lu jeex. noonu la ñuy def la nga di wax ba beneen yoon daal. incha mbokk internet yi ni seen taxaw ah seetlu lu am solo. waaye waxtaan nañ tamit lu am solo ak ñaari kilifa yi nga xam doon waxtaanal. kon mbokk internet TV kon du ma benn yoon ki nga xam ne ndeysaan bu image yi rek moom la. ñu koy wax ki nga Soxna Fatou. ju mën la trop ci yow. kon mbokk internet yi ba beneen yoon allah ngeen jëf. jog jog jog jog jog utakotembe set usettle